asalaamaaleykum mbokk yi déglu dalee nag jàmm docteur Diallo Diop te bokk ci parti bii di PASTEF te ñu daal di koy tas moom moo daal di xamle ne ci nii baa ne seen parti boobu de dina am candidat ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu la docteur Diallo Diop moom moo nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM moom mi nga xam ne mi ngi nekk vice président ci parti bii di PASTEF moom it la ñu daal di dénk lépp lu jublu ci wàllu panafricanisme ak question mémorielle foofu la daal di xamle. ne seen parti bii di Pastef ci ni bàcce ne dina am nag kenn koo xam ne tey jii daal dina taxaw tem nekk nag ci kanamu sénégalais yi ngir rek bëgg a wéyal nag projet bi nga xam ne moom lañ fi daal di tëral moom moomu di docteur Diallo Diop autolikaay bii di si quotidien di ñu jottali ay kàddoom mi ngi ñuy xamal ne ñoom fu mu nekk ni nag tey jii la ñu gën a dëggu ne seen parti boobu dina bokk ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal su fekkente ne tas nañu ko di leen xoqatal fu ne ñoom loolu du tax ñu daal di dellu ginnaaw ndaxte ba ngay naqarloo fu mu nekk ni sax buñ la gisee nga daal di takk li nga xam ne moom mooy bracelet bu Pastef suñu maytuwulee sax dañu lay jàpp am na ñeneen ñoo xam ne yëkkati nañu seen kàddu ñu daal di leen teg muy dem bay wax sax ne am na benn liste ba ñu yóbbu ci aéroport ngir képp koo xam ne da nga jóge ca bitim réew ngir ñëw di màggal si te su fekkente ne bokk nga nag ci biir liste boobu dañu lay teg loxo colikaay bi di bés bi la jour tamit daal di fësal kaddu yi nga xam ne kii di Diallo Diop moom la daal di fësal jëmale ko ci wàllu euh, parti bi di Pastef foofu la daal di xamle ne mu nekk Sonko wala boog mu nekk keneen Pastef moom euh, dina daal di am candidat autolikaay bi di Vox Populi moom it ma ngay ñëwaat ci kàddu yi nga xam ne docteur Diallo Diop moom moo ko daal di fësal moom kon la mu firndeel moom mooy ne Pastef dina daal di am candidat ci wàllu élection yi nga xam ne euh, moom la ñu la loolu autolikaay bi di Walf Quotidien la mu ca gis moom mooy kon ne plan B moom kenn du werante ne am na foofu nga xam ne moom mooy ca parti fa kii di Ousmane Sonko nañu jàpp ak julikaay bii di Dakar Presse ne tey jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août dina nekk fanweeri fan yi nga xam ne ma ngay xiifal boppam loolu moom moo tax ba njàqare fu mu nekk nii ñeen ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jege ay avocat am ak tamit ñamu bokkal ca Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko moomu julikaay bii di yor yor bi daal di gis ne ba léegi mi ngi ci biir xol yi ak xelu sénégalais yi ndaxte léegi fépp foo dem fii ci biir Sénégal xam ne de moom mooy Ousmane Sonko ginnaaw ba mu daal di amee ci lu tolloog téeméer yu tegal ñeent fukk ak ñaari personalité yoo xam ne dañoo euh, bind signé ab pétition ngir rek ñu bàyyi ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko tey ji yooculikaay euh, euh, bii di critique moo ñuy xamal ne am na ci lu weesu nag junni yu tegal ñaar téeméer ak ñaar fukki sénégalais yoo xam ne it daal di nañuy xaatim benn bataaxal goo xam ne ñoom lañ cey xamle moom mooy ne démocratie bu réewum Sénégal ba léegi tey ji la gën a taxaw yooculikaay bii di critique mi ngi ñuy xamal ne ci ñooñu nga xam ne kon ñoom ñoo tontu jëmale ko euh, ci euh, téeméer ak ñeen fukk ak ñaari personnalité yi mën nañ ci ràññee ay universitaire ay recteur ak ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu politique ñenn ñoo xam ne dañoo jiite ay gox ak goxaat ñi fi nekkoon député wala ñu nekk ko ba léegi ay kilifa diine ay agent de l'état acteur économique ay euh, sportif ak tamit ay artistes ñoom ñëpp kon ñoom ñoo daal di tontu ñii nga xam ne kon ñoom ñoo bëggoon Euh, kii nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko ñu daal di jukki léegi ci wàllu candidat yi nga xam ne moom lañuy nemmeeku ci wàllu élection yi ñu euh, la ba ca njëkk moom mooy candidat wu waa Benno Bokk Yaakaar même su fekkente ne ba léegi kenn xamu ko kii di Aly Ngouille de moom yëkkati na loxoom moom moomu ci biir colikaay bi di l'Observateur ma ngay xamle ne amul luy tax nag ba moom du nekk candidat euh, waa coalition benn Bokk Yaakaar beneen candidat ngi nii di Cheikh Bamba Dièye colikaay bi di 24 heures moo ñu koy xamal tey ji du ñu wax ne moom fu mu nekk nii daal ma ngay delloo buum ca booy booy ba ndaxte moom xelam ak xalaatam yépp nekk lu dul mu nekk candidat euh, ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ma la julikaay bi di enquête beneen candidat la daal di fësal muy ab soxna euh, muy Aminata Touré suñu natango yi du ñu xamal ne kooku di Mimi Touré moom dafay basket athlète la judoka la maanaam Mimi daal dafa mel ni ne xeex moom ci deretam la nekk rax ci dolli lépp lu jublu ci wàllu politique yàgg na ci torop ndaxte ci atum 1993 moom moo nekkoon sax directrice de campagne candidat wu AJPADS di Landing Savané julikaay bi di las moom mi ngi ñëwaat ci benn beneen euh, candidate muy Anta Babacar ngoom moom moom nga xam ne kon euh, daal dinay samp euh, ndëndëm autolikaay bii di laas mi ngi ñuy xamal ne moom nee na dina def kéemtalaay kàttanam ba ndaw yi daal lépp lu ñu soxla ci wàllu xëy ak nekkin yu am solo mu daal di ko fi indi moom moom autolikaay bii di la mandat di sax ne doomu Babacar Ngom la mi jiite Sedima moom moomu di Anta Babacar Ngom ndax dina mun a nag jàmmarloo ak ñi nga xam ne kon ñoom ñooy yeneen candidat yi loolu lool la ëccolikaay bi di la mandat di laajte Racine si moom ëccolikaay bi di l'info moom mooy laajte it ndax dina nekk candidat ndaxte xam ne nag euh, moom mooy alsar ñoom ginnaaw ba ñu daal di waxtaanee ci seen biir waxtaan tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fàtt ci ginnaaw Racine si la ñu bëgg daal moom mooy mu daal di nekk candidat ci wàllu élection yi nga xam ne euh, moom la ñu dëgmal ndaxte nee nañu nag candidature boobu demande sociale la te it fu mu nekk nii ñëpp ñoom ñoo ko bëgg nga nekk mag xale góor wala boog jigéen Racine si moom mooy candidat boo xam ne nag moom moo a juboolee Sénégal bi nga xam ne nag moom mooy tax ba suñu koom-koom daal di gën a dëggoo fii ci biir réew mi beneen candidat ngi nii di Bougane Gueye Dany yow jolikaay bi di la mandat mi ngi ñuy xamal ne ci njaxteelu ay bés bi sax mi ngi woon te zone des Niayes demoon na fa nag ñi daal di saafonte ak ñoom waxtaan ak ñoom it ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ngir ñu wàccee mën a indi ay saafara Barça wala Barsax tey jii la gën a tar ndaxte jolikaay bi di la peuple quotidien moo ñuy xamal ne ci lu juróom-ñaar téeméer yu tegal ñaar fukki migrant yu bàyyeekoo nag fii ci biir Sénégal yegg nañu fa li nga xam ne de euh, moom mooy ca Espagne wante yow colikaay bi jëlu quotidien mi ngi ñuy xamal ne candidat yi nga xam ne nag ñoom ñooy jël mbëkk mi nañu moytu bu baax a baax ndaxte am na ñoo xam ne ab prox ndoll la ñu ko def rek ngir war leen a mën a jël dugal leen nag ci mbirum jihadiste colikaay bi jëlu quotidien di ñu xamal ne am na ay agent recruteur yoo xam ne daal ñu ngi ci yenn ci ay gox yu nekk fii ci biir Sénégal ñoom nag dañuy nax ndaw yi ba suñu moytuwulee dinañu leen dugal ci foo xam ne xalaatuñu ko woon jeexale ko wàllu tàggat yaram stade yéenekaay di ñëwaat ci lu coupe du Sénégal mi ngi nekkoon ci diggante Jaraaf ak stade de Mbour suñu yi du ñu xamal ne waa Jaraaf ñoom ñoo am ndam ndaxte daal dinañuy daan waa stade de ñaari bal ci euh, benn bi nag moom mooy fukk ak juróom benneeli yoon bu Jaraaf nag di yëkkati li nga xam ne moom mooy coupe du Sénégal lii moo nekkoon boxtu li kat yi li gën a fës ci biir colikaay yi ñu leen di ñaanal njeex ci lu bës ak jawam mesdames et messieurs bonjour que le président Macky Sall et son régime se le tiennent pour dit, l'ex-parti PASTEF aura bel et bien un candidat qui va défendre son projet à la future présidentielle. L'annonce est du vice-président du parti PASTEF chargé du panafricanisme et des questions mémorielles, Diallo Diop. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio au Sud FM et le docteur Diallo Diop a indiqué que le PASTEF est une force politique qu'on ne pourrait rayer d'un seul trait Il a indiqué qu'à défaut de la candidature d'Ousmane Sonko, le projet de PASTEF sera porté par un autre candidat qui en sera le porte-étendard le 25 février 2024. Par ailleurs, toujours dans Sud Quotidien, s'exprimant sur la situation politique, le vice-président du parti PASTEF, chargé du panafricanisme et des questions mémorielles, a dénoncé le régime de terreur blanche où l'actuel gouvernement invoque la loi pour harceler les gens, notamment les militants de parti, parfois pour un simple motif de port du bracelet de la liberté. Le gouvernement invoque la loi pour harceler les gens, mais dans le même temps, il foule aux pieds la même loi chaque fois que ça l'arrange, ajoutera Dr Diallo Diop. Et c'est aussi euh, offusqué de l'existence d'une liste de compatriotes de la diaspora à arrêter lorsqu'ils vont débarquer à Dakar pour le prochain Magal de Touba. Le docteur Diallo Diop nous disent toujours nos confrères a aussi

qu'il est sûr et certain que Pastef aura un candidat euh, selon Diallo Diop qui théorise ainsi un autre plan au-delà de Sonko. Dans le journal Besbi le jour, nos confrères reprennent également les propos de Diallo Diop qui esquisse le plan B et déclare que même sans Sonko, Pastef aura un candidat. Pour Walf Quotidien, maintenant, il est sûr que Pastef agite son plan B euh, concernant la présidentielle euh, de 2024. Pour ce qui est de l'actuel leader du parti retenons avec nos confrères du journal Dakar Presse qu'il entame ce août son 30e jour de diète. L'inquiétude se propage chez ses proches, ses avocats et ses camarades de Yewi. Ousmane Sonko qui, à en croire nos confrères du journal Yor Yorbi, est de plus en plus dans les cœurs et euh, conscience Nos confrères en veulent pour preuve la soncorisation de l'espace public qui est en marche. Après que 142 personnalités ont signé une tribune intitulée Sénégal, le temps du désenchantement, demandant la libération du leader du euh, défunt parti PASTEF, 1220 Sénégalais, parmi lesquels 80 universitaires, dont 5 recteurs, 200 acteurs politiques, 167 exécutifs territoriaux, 292 parlementaires, des religieux, des agents de l'État, des acteurs économiques, des sportifs et des artistes, entre autres, ont répliqué à travers une autre euh, tribune que publient aujourd'hui nos confrères du journal Critique. Et c'est pour dire que la démocratie sénégalaise reste debout. Nos confrères de l'I quotidien nous parlent également de la réponse de plus de 1000 intellectuels sénégalais sénégalais au groupe des 142 concernant donc cette pétition euh, pour la libération de Sonko. La coalition Benno Bokk n'a toujours pas de candidat, mais l'on nous signale dans le journal L'Observateur qu'Aly se positionne. Le ministre de l'Agriculture est candidat à la candidature de Benno Bokk Yakaar et dans le journal L'Obs, il déclare que les lignes vont bouger. En plus, il euh, signale qu'il n'y a pas de raison pour lui de penser qu'il ne sera pas le candidat de Dakar. Et en parlant de candidats dans le journal Enquête, nos confrères nous présentent la candidature de Aminata Touré. Nos confrères nous font son portrait et c'est pour dire qu'elle est athlète, basketteuse, judoka. Bref, Mimi a appris l'art de faire face aux adversaires les plus féroces. En 1993 déjà, elle était directrice de campagne du candidat de AJPADS, Landing Savané. Une autre candidate figure la une du quotidien LAS. Il s'agit de Babacar Nos confrères du quotidien LAS nous la présentent et évoquent qu'elle vend l'espoir. C'est la fille de Babacar Ngom, nous précisent nos confrères du journal Le Mandat et c'est celle qui pilote les rênes de Sedima. Elle ne manque pas d'idées pour une alternative crédible. Cependant, nos confrères se demandent si la candidate de la plateforme alternative pour la relève citoyenne a-t-elle fait ses armes avec des reins solides pour devoir plonger dans

base. Le mouvement la candidature de Mamadou Racine Sy la présidence de la République du Sénégal. Et pour ce mouvement, cette candidature est une demande sociale, une demande populaire portée par du troisième âge, les femmes et les jeunes. Bougane Gueye Dany, lui aussi de 2024, était ce week-end la zone de sa visite était de mieux comprendre les défis auxquels font face les producteurs agricoles de cette zone maraîchère, Bougane a annoncé des solutions novatrices. Parlons à présent de la migration irrégulière et c'est pour signaler avec nos confrères du quotidien Le Peuple que migrants sénégalais ont débarqué ce week-end en Espagne. Et dans le journal Le Quotidien, nos confrères alertent sur la présence d'agents recruteurs dans les zones adjacentes aux frontières entre le Sénégal, le Mali venant des rives du Sénégal euh, comme Podor, Matam, Kanel, Bakel, Sélibaly. Et selon nos confrères, cette information a été confirmée par les autorités et cela montre que les candidats à l'immigration euh, floués par des promesses d'emploi dans des secteurs lucratifs se retrouvent souvent dans des filières terroristes. Terminons par le sport. La Coupe du Sénégal a opposé le Jaraaf au stade de Mbour. Elle s'est soldée par une victoire euh, du Jaraaf de Dakar et selon confrères du quotidien du sport Stade, c'est dans un stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en fusion ce dimanche que le Diaraf de Dakar a battu le Stade de Mbour de buts à 1 et a pu soulever sa 16 Coupe du Sénégal. Les Médinois succèdent ainsi au palmarès au Casasport, vainqueur des deux précédentes éditions. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.